c'est-à-dire ki moi euh, fu Mes euh, euh, traitement judiciaire rapport cours des comptes bi nga xam ne itam dafa daal de aju Covid 19 qu'en est-il pour la poursuite de mon ko pour la poursuivre exactement. Oui, mais c'est ça. Des gens se posaient la question qu'en est-il de ces rapports-là hmm, Qu'en est-il de ces rapports-là Parce que nous, nous, les corps de contrôle de l'aéroport rapports, nous toog nii kenn nous dara. de mm-hmm. aussi le ministre de la justice Ousmane Diagne nous wax dit que toutefois euh, il va commencer à comment appels maintenant pour nous, nous c'est normal c'est-à-dire que par rapport à nous nous lu il a dit que il l'a pas dit Ousmane Diagne wax loolu. dafa ça est en traitement toutefois bu ñu fa eggee dinañu wolu képp acquis de droit mu ñëw jàkkaarloo ak ñom ñu laaj ko parce que la réduction des comptes foog mu am la réduction des comptes foog mu am xam que ça soit ngeen presse mal intentionné wala lenen di jéem xel sénégalais mais réduction des comptes foog mu am parce que on peut pas se permettre d'avoir dans ce pays des gens qui détournent des milliards ba pareil, ñu ngeen ne non non non Ken waru leen mm. non arrêtez ça aussi. Mm. regarde ce que Waly Diouf football a dit keroog barke démb mel ni nit la rey ñu jël affaire bi politiser ko di japp fu nekk c'est-à-dire que ñu ko dans tous les toits. voilà ñu ne non ñoom ñoo ne lan instrumentalisation parce que dégg na ay journalistes ñu nekk dans dans une presse de la place beaucoup bugguma tuddu tout presse bi. Déjà ces journalistes là taxaw le matin di def sen émission matinale bi di nan non Wally Diouf Bodian lu mu wax ñom ñoo doon bañ ay instrumentalisation de la justice même lu mu wax c'est comme si c'est instrumentaliser la justice ñom presse bobu moko doon wax te suba ma deglu alors que Wally Diouf Bodian lu c'est tellement simple c'est simple té lu mu wax sénégalais dans la tous même lañuy réclamer ba légui les fonds Covid 19 anamu falla la toll mbir yi fa la toll yëf yi fan la toll ñan ñoo sacc ñu sacc lu ñu leen di bal wala kan mo leen bal ñu sacc lu ba léegi bo ba woowu sénégalais voilà les questions qui reviennent hein, dans les débats de thé au, au, Sénégal sénégalais c'est les questions là qui se posent qui qui la ñuy interroger pourquoi bo ba léegi ñu sacc ci Covid 19 yi ñu supposé ni ñom ñoo sacc ba woowu mais nga fay ni doon dañ leen war a woo. exactement. Ah, ba tey maa nga ca. Ah. dama ne dañ leen wara wo ah sëñ kon. xam dafa la <laughs> euh, <laughs> ministre de justice ah, quand même. pour ñu euh, dama ne suba suba suba état suba suba suba ñu de. Hmm. man donc là est-ce que donc. tu es impatient. ma gën a sa ñoom ñi wax suba parce que l'union ñu sàcc dafa bëri ñu xam kan mo sàcc ak kan mo sàccul parce que tey dëgg naa ñuy citer ay tour dëgg naa tey ñuy citer ay tour maintenant bu ñu citer ay tour ba pareil. ana ñooñu il faut que nous allons leen il faut que les responsabilités soient situées ça aussi il faut arrêter ça aussi quand même Même je suis pour la réduction des comptes ñu xam kan moo def ak kan moo deful. parce que l'argent du contribuable ben nit du duko meuna détourner ba paré il vit dans ce pays on continue de ñu continuer di rombanté ci dëkk bi sàcc xaalis ba paré ñuy continuer di rombanté di xoolante quoi ci dëkk bi moo il faut que yone def liggéeyam. mais y a le temps de la justice. dama ne je suis d'accord avec ça le temps de la justice mais yone warna def liggéeyam man euh, loolu laa gëm. mais dem Ousmane Diagne avant li mu wax le ministre de la justice jur na li nga xam ne que moo di suscité na exactement le débat euh, par rapport aujourd'hui ak li nga xam ne que moo euh, éventuelle poursuite bu ñu nga xam ne itam ñoo si fond Covid bi yëf yi peut-être suy woo mm, ñoom maam ñoom ñoom ñoom Massou Faye et consort dinañ si booru mën a li nga xam ne que moo di épargner mais ñoom batay japp euh, nul n'a été mentionné d'une posture judiciaire par rapport à li nga xamni ne itam ñu ne daal ils sont confiants sont rendus fa nga xamni ne itam maison nak je veux parler ki nga xam que mu di Mansour dem na fa dalal na xelam exactement par rapport ak lam fa manet di nul n'a été l'objet d'une poursuite dañu né ay rapport mo am rapport mo épinglé diou diou Masamba ak Mademba. mais product bi tamit. non xama xama xam may da may déglu. dañu né ay rapport ñoo génn di épingler ay tour ay tour mais tour il la ñuy mais c'est quoi la finalité d'un rapport mais pour que yoon dafa liggéeyam mooy maanaam yoon la ñu nekk di xalal ne ko ah waa ji de cité nañ ko ci lii mais ba xam woo ko ba xam di di ko laaj allant dans ce sens hmm. maintenant bu fekkee moom deful dina andi ay preuve dina andi ay preuve am ni que mon mais la finalité d'un rapport mais c'est ça moi am suite judiciaire moi, am des suites judiciaires c'est ça la finalité de rapport rapport épingler ba France c'est là où les Sénégalais ne sont pas d'accord c'est là où nous on n'est pas d'accord ce qu'a dit le ministre hier mais il a raison s'il y a des rapports mais du ministre du ministre il y a des cours de contrôle indépendants ñoom ñoo def ces rapports la Cour des comptes le rapport OFNAC ICE, IGF ces corps de contrôle là ñoo def ay rapport c'est pas le ministre qui a fait des rapports mais nous bu ñu defee ay rapport ay rapport ba pare génnee ko teg ko ci table président président ne ministre ah kaay xool ministre de la justice kaay xool am na lu nekk fii ci table bi mais xoolal ba xam ndax mën na am l'objet de poursuite judiciaire yoo nga xool maintenant si ministre bi xool na ak le président de la république ni jàpp ni que ni war nañu leen ne serait-ce que pour satisfaire la demande des sénégalais mm. mais war nañu ko diligenter pour comment dire judiciairement ñu top leen loolu la ñu wax mais waxuñu ni ministre bi moo ne dañ leen daf leen di de parce que le ministre n'a pas fait des rapports les rapports qui étaient sortis n'ont pas été faits par le, le par le ministre ministre bi ay corps de contrôle ñoo def rapport soumettre ko ne ko rapport yaa ngi léegi la balle est dans votre camp ñun ñun daan ñun en tant que corps corps corps comment dirais euh, corps d'enquête la ñun def nañu suñu liggéey. Hmm. léegi rapport yaa ngi li euh, la balle et dans votre camp ñoom ñu daal di pare ci ci ci ci affaire yi mais maintenant on attend la justice. justice dafa liggéeyam. donc ñu japp ni euh, cour des comptes ñom ñoy diglé peut-être pour yone ak yone yoon def liggéeyam donc corps de corps des euh, corps de contrôle ñom dañuy paré jëbbal ko li nga xamné ko que mu di ak donc enfin ñu gis ci product bi am ñu gënoon di jubilé que ni nul n'a été mentionné d'une procédure judiciaire je parlais de Pape Malick Nour et compagnie exactement. Mm-hmm. donc à tout moment la euh, roue bi mëna tourner wu. non mais qui jubilé ci product bi parce que dafa xamul xamul qui se ci product parce que dafa xamul parce que la la presse de désinformation là moo publié ci les journaux là ni que Pape Malick Ndour a été blanchi par la Cour de comptes Madame comment adresse hmm. a été blanchi par la Cour de comptes il n'y a pas un journal qui s'appelle Critique vous me sa titre ni Mambayan a été blanchi par la Cour des comptes voilà amul vous faites damay sos ngeen ne ma damay sos amul hmm mais c'est ça la presse de désinformation mon mm. c'est ces ministres anciens ministres là Pape Ndour c'est parce que quelque part il a été il avait il y avait une désinformation quelque part il y avait une désinformation quelque part mais la réalité mais c'est ça c'est ça c'est ça maintenant maintenant la presse de désinformation mon mot publié ni que Pape Malik Ndour dafa set Timbirmi. alors que ce qui a été révélé par les, les rapports. Allez lire les, les, rapports. Ce qui a été révélé par les rapports de la Cour des comptes et de OFNAC. Hmm. Je suis désolé, mais les rapports là, contrairement à ce que cette presse de désinformation me donne, les Sénégalais dit que Pab a été blanchi, Mambaïna a été blanchi, Kelan Hauma ak Mademba ak Alors que l'un qui rapport, c'est autre chose waxul loolu franchement je suis désolé ça aussi c'est de la désinformation pure et dure maintenant bu ñu toutefois bu ñu demee ci enquête yi dinañu xam kan moo def ak kan moo deful man lu gëm man yon na yon def liggéeyam la gën la gëm man je ne fais pas de pression wala li li man dama né na yon def liggéeyam parce que ñu tudd nit tudd tudd ay nit ci ay ay scandale ay sàcc ba pare kenn du leen top man lu la gëm donc Ousmane Diagne jëm dafa dem dans sens. mais c'est ça ku randal xaalis Sénégal ku randal xaalis réew mi jaawaale poos askan wi ak poosam nagn ko top mu fay khalis bi ba mu jeex tak ba paré ñu sanctionné ko. Hmm. oui c'est ça fay khalis bi ba mu jeex tak ba paré ñu sanctionné ko. Ah dina metti de. non dafa wara metti nak dafa wara metti comme ça bu kenen ñëwé du saña def la même chose dafa wara a sap sap. dafa war a miti te lii tamit maa ngi koy waxaat dama ne il faut que régime bi xam méthode gars yi gars yi dañu ne dañuy sàcc ay milliards ba pare dem tëdd seen peine ba pen bi jeex ñu ñoo noosee seen xaalis il faut pas état mu tombe ci piège boobu gis nga ku ñu épinglé ba ñu jàpp ni que yoon def liggéeyam yëg ak ko wàcc ba ñu épinglé jàpp ni que yow effectivement lu ñu lay tuumal yow yaa ko def bu ñu la teel a dugal ci kaso de mm. déedéet buñ la teel a dugal ci kaso nañ la topp benn benn immeuble yi nga am ndakaaru Saint-Louis Thiès Mbour immeuble yi yëpp oto yi ngay am yëpp ñu nangu ko nangu lépp ba mu set wecc raxas la ba mu ba nga set wecc bale bi ama bale bi heureusement ñoom yor nañu ay bale hmm. dañuy àndi bale bi bale bale ba mu set wecc regroupé ko delloo ko ci trésor public bi bu pare dugal la ci kaso mais buñ la teel dugal ci kaso sans nangu say immeuble yi ngay am fii seen immeuble yu bari ci ay prête non lañ ko défé ay prête non lañ ko défé motax buñu taxañ taxañé gaay yi dugal ci kasso parce que ñom dañuy né mën naa dem teud kasso sa peine sama peine ba mu jeex mm. ma ñoo nosé sama sama milliards yi ma sacc lolu méthode buñu xam la mota mané nañ lañ top ben ben képp ku ñu dem justice def liggéeyam ba jàpp ni que waa ji de na nañ la top ben ben nga woné immeuble yi nga am ñu nangu raxas ba mu set wécc taxañ taxagne la yóbbu la ca xaj ci kasso lool la gëm. dafa war a métti alors ñu daal di euh, que si les échos arpentés mu ñow ben euh, lu am solo exactement ginnaaw bu Ousmane annoncé euh, la baisse des prix des denrées de première nécessité baisse du coût de la vie aucune mesure concrète prise hier en conseil des ministres mais Ousmane Sonko jël fa benn mesure boo xam ni itam nii ministre daal suñu loxo exactement Ousmane Sonko n'a fait part que des mesures envisageable et des euh, denrées visées euh, euh, amal mm, en tout cas il s'agit donc de de riz brisé parfumé du pain du sucre cristallisé et de l'huile enfin aucune mesure concrète prise hier en conseil des ministres d'après les échos d'où son titrage exactement par rapport ak annonce bi nga xam tam dafa nekk ni ki démb la 15 que on va assister la baisse hmm, Tay beaucoup d'exploitateurs et de producteurs jàpp ni sax mënuñu ko amal fii ak deux ans euh, peut-être mënul sax nekk 2 euh, ans sax doyul étant d' autres étant d' autres euh, ban jàng daa def concrètement par rapport ak la sortie hmm, bu Ousmane Sonko si deltu ginaaw bi nga xam tam deltu na ko ginnaaw ñu tuddee ko entre guillemets wax waxet waye tam ak mesure concrète bi nga xam ne itam démb jëluñu ko en conseil des ministres. xam nga yàgg naa la ne ku japp di que mën nañu wàññi la charité de la vie au Sénégal di tikkoo takk da ngay nax sa bopp. da ngay nax sa bopp. dama ne ku yaakaar ne wàññeeti dundu gu seer gi nii lañ koy wàññee di tikkoo da ngay nax sa bopp. Mm. mën nañ ko wàññi progressivement mais c'est pas il faut gis nga son Fallou patience lay laaj patience. Mm. patience lay laaj parce que wàññi la vie la charité de la vie au Sénégal c'est pas c'est-à-dire que reposez-vous ci seulement Reposez-vous. les décisions ne viennent pas seulement de de comment du régime ou de Diomaye ce que kese moi parce qu'il y a des acteurs qui ko il y a des acteurs les acteurs commerciaux les commerçants là mais ils ont leur mot à dire donc je suis ne la ku je ni ni la ñuy la de la vie Moi suis sa à que ñaari cas yi il ñu toog waxtaan ci ànd waxtaan bu sincère laa la wax waxtaan bi foog mu sincère démb joxoon naa la fi benn exemple ne la par exemple le commerçant qui va buy dem bitim réew di importer bu ñëwee dafay soxla waxtaan ak nguur gi ne ko taxe bi nga may teg ci ci produit bi boo bëggee ma wàññi ko fële. foog nga teggil ma taxe bi wala allégé ma comme ça mané ne man su ma ma jaay tamit foog tamit ma am bénéfice maintenant bu taxe bi élevé fi nga bëgg tamit commerçant bi bu ñëw mo wàññi son produit dafay jafe dafay jafe dafay day métti day poser problème moo mané la les décisions de la réduction des prix des des denrées de première nécessité n'est pas l'État n'est pas décidaire l'État du Sénégal n'est pas à lui seul décidaire il y a des acteurs qui ont leur la ko ils ont leur mot à dire loolu fait la concertation entre l'État du Sénégal ou bien le régime qui est là et aussi le secteur privé parce que le secteur privé beaucoup entreprise de commerce ils ont fait xam